Euh, gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu tàmbali ko ak dimbalante yi nga xam ne comme li ma wax léegi ki ñu yàlla booleel muy président Macky Sall nga xam ne mboolem njabootam gi li ñuy nekk di ci dox di ci wax mooy social président Macky Sall moom mooy jëmmi social donc képp ku njaboote ak moom rek ci loolu ngay dox. loolu moo dox tax fii baaxoo nañ xam nañ ne chaque année première dame daan na jël ay aide yu am solo dugal ko ci biir dëkk bi dimbalee ko jaam yàlla yi ay ndimbalam ci Kaolack ay lu bari la am na ci yu bari yoo xam ne sax population bi xamuñ ko mais am na yu ma ci laal tey wax naa léegi ma ne fan yi ci ginnaaw rek bari na ay dëkk fii ci biir Kaolack yoo xam ne moom moo leen defal ay toilettes loolu mën naa ko seede parce que liggéey bi sama loxo la ko tegoon ñu di ko doxal fii ci biir Kaolack yëpp ba sax ci biti Kaolack loolu yëpp ay ndimbal la yoo xam ne heure bu nekk li muy wane mooy mi ngi am ñëwent ci population bi mi ngi am ñëwent ci jaam yàlla yi nga xam ne jàpp na ne am na ci ay benn benn yoo xam ne seen loxo yi jotu seen ginnaaw muy fexe heure bu nekk na lay dimbalante ak yow mën naa seede lu bari ci ay jëf-jëf ci ay nit ñoo xam ne dañoo jagadi woon feebar mu jëlee leen fi yóbbu leen biti réew ay nit ñoo xam ne souvent seen dund day të muy jël ay dund heure bu nekk duñu ko jox ñu di ko yóbbu ci biir population bi xataa ba ci avant élection am na fi ay dund yoo xam ne jox nañu ko fii xam naa ne day jàpp sax na xamuñ na moo ko def waaye yëpp loolu yëpp li muy wane rek mooy sociale bi nga xam ne moom ci lay xëy ci lay gont ak nekk ci wetu borom këram di ko jàppale ci wetu askan wi di dimbalante ak ñoom lépp loo xam ne soxlaal askan wi la ca mu xam ne moom ci yëngu-yëngu bi muy def ci fondation am yàlla may na ko kàttan pour mu def ko du ci xaar kenn. du ci déglu kenn daf koy def ca yàlla rek moo tax buggul sax façon bii ñu koy defee ñu di ko def waaye wax naa léegi ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku sant nit doo sant yàlla te ku dul sant yàlla yéefar nga ñu dellu wax ne képp koo xam ne danga nekk njariñ ci askan wi di leen jàppale danga am jàmm ca safan dana gudd loolu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax yonent bi sallallahu moo wax ne feeñal leen seen baax baax yi pour ñu encourager ñi nga xam ne sax nekkuñ noonu di ko def yooyu yëpp mu nekk ci kon dafay jaadu même bu ko bëggul ñun ñu wax ko parce que suñu wareef ñun du dara lu may porter lépp lu baax ak lu rafet ak loo xam ne bu buñ ko waxee dana tax jullit yi am ci ay xol yu neex wala gis yi seen bopp ñu feeñal ko def ko te ci loolu la nekk heure bu nekk rek mi ngi dimbale askan wi mu ngi dimbale population bi mi ngi dimbale jullit yi mi ngi dimbale sax ñoo xam ne jullit moom dimbalam ajuwut ci ñi faala wala fi faala wax naa démb ma ne ah ñun de xam naa su nekkul doomi Kaolack tam moo ñu gënal doomi Kaolack yu bari de parce que jëfam fii ci Kaolack bari na yaatu na ci lépp luñ mës nekk rek dugal na ci loxoom. def ci loo xamante ni buggul sax ñu di ko wax kon dafa jaadu ñu feeñal yooyu parce que baax baax yooyu dara taxul ñu war koo feeñal lu may encouragé jullit yi pour ñu xam ne dimbalante yàlla moo ñu ko digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ñu ci feeñal tamit defuñ lu may li ñu yàlla sant defuñ lu may li ñu yonent bi wax mooy ñu feeñal jëf-jëf yu baax yi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy def moo tax ñu feeñal ko leeral ko dama wax léegi ma ne sagam ñu nekkul ci dara ñoo mën a xëy ci réseaux sociaux yi ak presse bi di wax suba ba ngoon jot waxuma laa ñuy def lu baax nañ fexe baax baax yi ñuy def ñu feeñal ko baax baax yi ñuy def doy na doy na message pour tontu lépp loo xam ne safaan la baax baax yi ñuy wax doy na doy na doy na tontu ci lépp loo xam ne nit ñaa ngi koy wax ci ay safaan moom ci jëf ci la nekk doo ko dégg ci lenn loo xam ne da nga wax ne lii soxna si moo ci tontu amut te bis bu nekk 24 heures yu nekk da gis ñu tooñ ko mosoo dégg ku ko tontu du soo dégg ku ko tontu. mi ngi nekk ci jëf rek waaye maa ngi wax ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne képp ki gën ci nit ñi ki yàlla gën a fonk ci nit ñi mooy ki ëpp njariñ ci askan wi kooku leen yàlla gën a fonk te moom bokk na ci ñi nga xam ne yàlla dogal na mu am njariñ lool ci askan wi di dimbale askan wi lool di leen jàppale lool ci lépp loo xam ne seen loxo jotu ci ci ñi feebar ci ñi matal mi ci ñi manqué ci ñi nga xam ne amuñ ci ñi nga xam ne dañoo néew doole ci nga xam ne dañoo bëgg loo xam ne seen kàttan yeggu fa lépp lum ci yëg ca man ko du ko waaj du ko tardé bu koy dox sax loxo càmmooyam bi bu ko loxo ndeyjoor bi yëkkatee loxo càmmooy bi di ko yëg waaye nag loolu dafa war a jeex def def yu baax yi nit dañ ko war a siiwal ndax def yu baax bu nëbboo yu bon yi rek ñooy feeñ kon nañ leen fexe di feeñal yu baax yi loolu yonent bi wax loolu la yàlla digal ñu ci alquran nañ jëfee li ñu yónent bi wax sallallahu alayhi wa maa ngi sant mbooleem li ma wax kilifaay diine yi di wax na incha allah mbooleem xéwal li fi nekk daañu ko tasaare mu dem ci kemtalaaya li ñu man fépp foo xam ne mbir ma yegg na fa ca sama jëmm yegg si fa nanga xam ne jëfi soxna si la na xam ne ndimbalu soxna si la moo ko dugal ci biir jaami yàlla yi pour dimbalante ak ñoom ci at mu bees mi ma ne ma sukkandiku ci loolu. di def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour yàlla defal ñu atu jàmm yàlla dimbale président Macky Sall ba mboolem projet yi nga xam ne mi ngi ci ak mboolem mébét yi ak mboolem yaakaar yi jaami yàlla yaakaar ci moom yàlla may ko kattan gum kom ko mën a defee parce que jàmmam mooy jàmmi réew mi jàmmam mooy jàmmi Sénégal ndax Serigne Abdoul Aziz Dabakh daf daan wax naan mbir mi gaal la ca gaal gi tey président Macky Sall moo koy dawal kon ñun ñëpp dañoo war a ñaan gaal gi mucc ndax bu muccee ñun ñoom ñu mucc bu muccut laa sama xallaa ñun ñëpp dañuy lab yal yàlla may ko kàttan mu dawal gaal gi te bu ko dawalee yàlla na teer ci jàmm ci barke yonent bi ci barke mboolem saalixiina yi nekk ci biir réew mi salli ala sayyidina Muhammad wa sallim